ami internautes du Hann TV alaikum. Nous Nous sommes am ak contentement bu nous Nous ak yéen festival international bi Super Mbalit di war du 24 au 29 mai ici ci Yaraax Ngor Almadi Géejawaay ak Médina Nous nag ñu du programme Nous avons ci Cheikh ak Cheikhou Diallo coordinateur ak nga xamantene ne moo di Souleymane Ndiaye moom aussi ci coordinateur yi la bokk ak Sophie L'Invesseur nekk coordinatrice au niveau international jógee fi nga xamantene ne mooy Allemagne donc euh, Cheikh euh, Oumar ñu bàyyi la rek nga nuyoo mbokku internet yi nga xamantene ne moo ñuy suivre fii ci Antv. TV. man maa ngi tudd Cheikh Oumar Diallo euh, maa ngi dëkk fii si Yaraax bi donc nekk coordinateur projet bi Sophie Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Levasseur et euh, dans ce cadre euh, du projet Design Up et du festival Superman, Balit, euh, je suis la coordonnatrice de l'Allemagne, donc de l'international. Souleymane, nous sommes en train de nous faire. Je suis Souleymane Ndiaye, je coordonnateur le Festival Fitch ci Hann Bel-Air di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy te di ñu sur la chaîne Antv. D'accord, festival euh, Super Balé nag war a déroulé du 24 au 29 euh, mai mu soxal jog gox yi nga xamante ne mooy Yaraax Géejawaay Mamel Ngor léegi ñu bëggoon rek euh, Cheikh nga ñëwaat ci point de départ au festival bi ak naka ngeen def ba organiser lu nu mel. Super Mbalit dafay dugg ci cadre benn projet bu ñuy wax design point 2 point 0 donc ci projet boo xamante euh, donc c'est initié par euh, Swan Design donc euh, ba est financé par la ministère le ministère allemand des affaires étrangères Super Mbalit c'est un dafa am projet qui est wax quartier zéro déchet bi nga avons les mêmes partenaires au niveau de Anne euh, plus particulièrement de quartier Walou Tagat euh, famille wala boog population si naka avons ñuy gérer seen si biir loolu xamal nañ leen d'abord si euh, formation yi lan mooy mbalit ban njariñ la am ban impact aussi la am si euh, wàllum santé donc bañ defee ak ñoom ay atelier donc femmes yi dem nañu ba xam euh, exactement lan mooy mbalit si point yooyu yëpp ñu doon développé waaye tamit si biir loolu dañ leen doon woon aussi un peu partout si àdduna bi yeneen population yi ñoom nan la ñuy gérer seen ay mbalit ñoom ñu gis ni population yooyu si biir mbalit boobu ñoom mën nañ si am koom mën nañ si am liggéey waaye mën nañ si am beneen taxawaay boo xamante ne euh, mën nañ si mën nañ ko réutiliser waat donc loolu ba ñu nekkee di si di si si développé ak ñoom euh, ñu dem ba gis ni kat carrément que ni euh, war nañu mën a defar benn festival boo xamante ne non seulement dañuy wone njariñ bi nga xamante ne mbalit moom la am waaye aussi dañuy permettre adduna bi ñëpp ñëw donc au niveau de Hann war a visiter li nga xamante ne ay produits lañ yi ñuy exposé waaye tamit mu jóge si li nga xamante ne mooy mbalit Souleymane lan moo indi super mbalit. super comme son no ci dégg-dégg bi rek dafay xaw a péjoratif ndax ku dégg moo super ak moo mbalit ci interprétation bi nga xam ne nii moom la ñuy wax en wolof lu super bu ñu ko déggee rek c'est quelque chose boo xam ne nii dafa extraordinaire lu luxe et qui de mbalit mooy lu ñu lu ñu jël banaliser ko ba benn impression kese lañ ci am mooy jël dem tour léegi nag ñun à travers euh, une idée vraiment génératrice pour dire ni mbalit war na mën a am njëriñ. warit mbalit war nañ ko mëna jël utiliser ko ba mu nekk loo xamante ni population bi dina ci gis boppam y en a des gens yoo xam ne am nañ ci prise de conscience euh, di ci liggéey ay mbir mu mën leen euh, yokk seen seen seen économie am ay pays yoo xam ne gis nañ ni ñu ngi ci am ay stratégie di ko développer là loolu moo tax ñu ne ñun à notre niveau on va prendre ce concept ce nom super mbalit pour montrer aux gens que ni war nañu mën a am éveil de conscience sur la gestion des déchets mais aussi nous xam ñu vision ci mbalit vision que mbalit au lieu utiliser à d'autres fins c'est ça euh, euh, et là ça vraiment sonné et quelque chose de génial c'est pourquoi festival Super Mbalit. nous un peu de l'esprit du festival Il faut garder en tête deux choses ça parle vraiment du upcycling, donc euh, des déchets, que euh, ça c'est un, grand pilier. Et euh, l'autre chose qui est très important et qui joue un grand rôle pour l'esprit, ben, c'est l'échange interculturel en fait. Et l'échange interculturel et, et la façon comment on gère les déchets, ben, ça, ça pourrait conclure l'esprit du festival. En tant que coordinatrice, voilà, comment se passent euh, les préparatifs et comment vous faites pour vous organiser Donc en fait, euh, ben, vu que le festival il commence déjà euh, le 24 et le 25, donc la semaine prochaine, ben, les designers se retrouvent tous ici à ce moment-là au CFA pour travailler, pour créer, pour faire leur collection, pour réfléchir et, voir. Et donc ça, se passe euh, très bien, j'ai l'impression. Ben, après, on irait regarder, il y a déjà beaucoup de choses qui se, sont faites. Donc, euh, on peut vraiment voir euh, des tenues vestimentaires, des meubles, des petits accessoires, des décorations et des sculptures, des objets d'art. Donc, voilà, dans l'organisation, on est un peu derrière les coulisses. Donc, il y a aussi des choses qui se passent. Mais on va, avoir beaucoup euh, au festival. Actuellement, vous n'avez pas de problème euh, concernant les préparatifs Mais en ce moment, il faut dire que euh, ça va, ça va bien. Les designers sont motivés. Donc, c'est dire que nous voulons savoir choix C'est parce que nous voulons savoir l'état il y a des solutions pour la dépollution de la bédane. mais concernant les déchets solides. Nous savons que nous, avons fait des richesse là, te pourtant tay mënuñu ko jëfandikoo amana yenen suñu waré épanouir suñu waré par exemple dem euh, demi défi sangu par exemple duñ ko défé suñu bé te pourtant mënoon nañ ko fi def mais tay c'est interdit pourquoi parce que euh, non seulement euh, c'est dégradé ñu gis tamit que ni état waxna def na ci ay jumtukaay yu bari pourtant ba amul ben résultat ñun ñu xalaat ensemble nekkat li warna don ben déclic bo xamantene état bi dina xam ni euh, ndekete su mom su su nekkee en partenariat avec la population warna am des solutions yi nga xamantene tay suñ ko téggé suñ ko mettre en œuvre vraiment bee bi dina déllu fimu nékkone parce que fimu nékkone moy nékkone deuxième bee bi gën a rafet si adduna bi ginaaw bé bi nga xam moy mooy mu Brésil jeex na tàkk kon tey nag soo doon wax tay so doon classé wat so ko doon xoolaat ci position waxuma la rek dina sori waaye damay ragal mu nekk sax dernière loolu moo tax ñu def choix wu Hann ñu seetlu ne niveau yaraax da ngeen a exposition yi ci biir euh, kër yi lan moo waral loolu. donc foofu projet bi aussi tamit euh, Sophie wax na ko léegi dafay euh, privilégié wala dafay promouvoir li nga xam te cohabitation bi. Mhm. dafay promouvoir aussi proximité mhm. parce que wax na échange de culture bi dafa am solo. tey par exemple un Allemand bu ñëwee avec un Sénégalais. Mhm tout si qui est sénégalais donc dina permettre allemand bi moom aussi tamit mu mën a sénégalais bi donte ni sax parfois duñu bokk langue mais dañ mën a di jëflante tey Séné allemand bi nga xam Allemands, dafa jóge allemand ñëw fii Sénégal war a def tandem avec un sénégalais pourtant ils ont ñu ngi communiquer mhm. amaana sax bokkuñu langue mhm. mais ils arrivent vraiment à créer quelque chose et partage culture bob privilégié. mën nañu que ensemble c'est-à-dire que ñun ñëpp suñu bolé suñu ay doolé muy sénégalais bi allemand congolais wala ivoirien bi suñu bolé suñu doolé war nañu am war donc projet aussi privilégié promouvoir li nga xam proximité euh, cohabitation mais aussi partage de culture euh, on espère bien que projet bi nga festival super mbalit que ni population en de bénéficier

Euh, designers yi dinañu euh, euh, en tandem ñëw au niveau des ménages à Anne installé sen ay matériel installé li nga ni et que à partir du 25 du 25 au 29 l'exposition la exposition yi di am chaque jour à partir de 11h jëm 18h parce que si nous ba designers yi ñu installé wu ba tok nit ñi à visiter di visiter ci maisons. tandem yi maison xam ñoom lan la ñu ci à partir des déchets xam tamit lan la ñu au delà des des expositions il y aura aussi des ateliers ateliers yi lan moo lan moo waral c'est parce que dañu né, au delà des expositions yi am ci biir kër yi foog tamit ñu wan waa mbedd mi parce que on est dans dans une dans une euh, phase de sensibilisation pour pour faire comprendre aux gens que ni euh, mbalit bi war na mën a am njëriñ te loolu ñuy exposer ci kër yi am ñu ci jot a dinañu ñëw sur place. benn ñaar ñett euh, jëm euh, ay groupe de designers ñëw taxaw ne leen voilà on a ceci lii euh, déchet la yéen a ko doon jël di sànni lii déchet la yéen a ko doon jël di sànni bu ñu ko boolee on a pu trouver des solutions ba defar ci ay mbir yoo xamante ni laa ku ñu ko jox dina ko mën a utiliser. ces ateliers se tiendront ici à Anne aussi bien aussi à Guédiawaye parce que am na atelier yoo xam ne ni durant le 26 ba le 28 fii lay amee a Yarax chaque jour de 15 heures à 18 heures. manam instant bi atelier yi di daw yàqul dara ci exposition yi instant bi atelier yi di daw dara ci visite def ci mais atelier c'est pour euh, le public qui est dehors xam les designers ñëw di suivre di gis lan à partir de ces déchets mais au niveau de Guédiawaye atelier c'était par rapport euh, à euh, à l'enfance parce que dañuy yi élèves yi ñu sensibiliser par rapport à la gestion des déchets dans leurs établissements dinañu jëlee benn centre de football ici Yarax yóbbu ko à Guédiawaye mu fekk le centre euh, Sénégal Excelsior qui est partenaire du projet Nous ñoom ñoo à Guédiawaye une fois là-bas nous euh, passer passé ensemble l'atelier ñu sensibiliser les enfants wal leen que ni kat lii mën recycler en terme de mbalit mais aussi euh, buñ paree dinañu am benn de gala entre ces deux centres et que match de gala bi ballon bi ñu koy jouer ballon à partir du recyclage la maanaam ballon boo mbalit lañ ko défaré donc pour dire que ni exclure une ben ben ben couche qui par rapport aux différentes activités au-delà de ça pour la nuit du 27 eh, le vendredi 27 la nuit à partir de 21 h il y aura une une une veille culturelle bo xamné ni day amé fi ci quartier walo gi veille culturelle bi c'est des prestations amna euh, troupe théâtrale yu fi nek ci dëkk bi comme yu ci melni ni a une ak yenen troupe théâtrale yu nek ci ci ci yaraax fi dinañu ñëw prester dinañu presse eh, wo presse tamit eh, eh, kii troupe de danse ndaw rabbin bi am yarax ñomit dinañu ñew ñu prester pour promouvoir la culture wane que ni kat ñomit dañuy participer dans la sensibilisation ak tamit ñi nga xam ne dañuy def simb gaynde dinañu ñëw ñoom it prester maanaam ay xalé ay troupe de danse mais aussi au niveau du quartier walo gi dañu ne c'est un quartier bo xam ni, quartier historique la Amna ay grands parents yo xamanteni ni ñom ñoo tax quartier bi taxaw tay et comme c'est le quartier qui abrite le festival nous vais recevoir au nom de tout Yara dinañu solal seen ay sët ñu eh, pour valoriser waat euh, tradition mais aussi pour euh, commémorer cette mère qui est nga et euh, le quartier au-delà de ça le samedi le samedi y aura aussi un concert un concert sur la plage derrière l'école Bargué à partir de 21 h c'est un concert boo xam ne nii dañ frère ànd ak Guissé mais aussi dañ ciy ànd ak d' euh, euh, acteurs culturels de la commune ak tamit ay invités surprise yoo xam ne nii war nañu ñëw ay ay ay waykat vraiment de renommée dinañu ñëw ensemble avec la population hannoise ñu def un un un grand concert pour dire que ni des activités c'est ça mais exclure ci kenn donc ñu ngi ciy woo ñëpp. Cheikhou ñu bëggoon xam yan façon euh, mbalit ngeen di faral di transformer en général. designers dinañu euh, recycler bépp type de déchet bépp mbalit boo xam ne rek yow yaa ngi koy produire sa biir kër ñoom soo leen ko joxee dañ koy defar benn euh, benn produit exemple bi ma lay jox mooy dina am ñoo xamante ne dinañu euh, defar sachet sachet sachet bi nga xamante ne mooy sachet eau bi ñuy jël bu ñu naanee ba pare sànni ko sachet boobu. ñoom de am na ñoo xam ne dañ koy jël def ci pavage am na benn euh, xotu màdd xottu màdd am na si ñoo xam ne dañ koy utiliser pare après lekk ko après sànni xottu xoox bi xoox boobu am na ñu koy jël recycler ko def ko mu nekk jaaro boucle oreille am na si ñoo xamante ne aussi euh, dinañ jël canette boo ko jëlee canette euh, boo ko tijjee mooy kii boobu mu ndaw boobu bi am na ko am na koy jël moom lay defaree genre chaîne donc loolu yëpp c'est des produits yoo xamante ne soo ñëwee si exposition bi di nga ko gis te nit ñi dañoo jógee fu ne man nag surtout waa Casamance man waa Casamance ñoo ma si neex am na ñoo xam ne Casamance lañ jógee la ñu andi surprise lay doon damay bàyyi gars yi ñëw visite si visité yi euh, ñu gisal ko seen bopp. cela prouve encore que festival bi c'est au niveau international. c'est au niveau international parce que bu amee design nga boo xam ne Allemagne la jógee am koo xamante ne mu ngi jógee Amérique du Sud am koo xam ne mu ngi jógee Casamance kenn ki jógee Gabon loolu c'est international donc gis nga ne continent yëpp à la limite euh, c'est touché quoi. Sophie pour les designs, à travers vos designs, comment vous allez renforcer leur adhésion à la tolérance et à une durabilité écologique. Imaginez une bouteille en plastique devient une charnière pour une construction de bois. Donc au lieu qu'on a besoin de vis ou de la colle à bois, ben, on a vraiment une bouteille en plastique qui a été fondue et qui sert comme, comment dire, comme euh, matériau d'assemblage. Euh, c'est juste deux exemples et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de créativité. Il faut juste venir voir. Chéro, rappelez-vous l'activité activité le programme et ak nga invité gars yi nga war invité. D'abord, damay remercier bu baax waa si émission bi euh, di rek ak wax euh, cadre de vie dafa solo parce que nous dañu war de telle sorte que génération de di ñëw duñu joxoñ mais kat permet de nous ñu permettre ñu ñu épanouir comme il se doit si bir lolu motax ñu am taxaway bi taxawaay d' communautaire bi de défenseur de l'environnement di wo état bi di wo aussi encore une fois la commune parce que tamit la commune euh, elle est elle est le premier partenaire bi nga xam tane mom moy euh, mooy moom mooy moom partenaire festival bi. di remercier aussi le maire et son et son équipe di remercier aussi toute la population anoise si taxaway bi.

Je suis contente ci explication ñu ngi lay jaajëfal Sophie un mot. Eh, merci beaucoup pour avoir euh, regardé et écouté et on se revoit au festival Super Marie. Souleymane nous ci euh, émission merci beaucoup ci l'invitation merci beaucoup ci waxtaan bi mais aussi di santé les internautes parce que nous ñoo ñuy suivre nous nous la ñuy invité durant le festival ñu ñëw. Euh, passé ak ces 5 à 6 jours je peux dire 7 semaines.